maaleykum mbokk yi topp 24actu point com dellusiwaat nañ suñu émission bi nga xam ne moom lañ tuddee jotaayu koor jotaayu koor nag ñu ci ànd ak ñi nga xam ne ñoo di jànkate xasida di ci def lépp loo xam ne dafay daal di dundal koor tey ji ñu daal di dalal ki nga xam ne moo di sëñ Modou Kara Thiam sëñ Modou Kara Thiam nag nekk xas xasida bu mag sëñ Modou Kara ginnaaw bi la nuyu ñoo la ñu bàyyi la nga nuyoo ñu lay seetaan asalaamaaleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu euh, mbokk jullit mbokk taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di saari ñëpp di ñaan sunu kàddu yàlla na fekk ñépp ci jàmm ci barkeb Seexul Xadiim di nuyu baax Cheikh Mouhamadul Muntaxa di ko ñaanal fan gudd ànd ak wér ba yéeneem ci Sëriñ Tuubaa suñu boroom bàyyi ko fi mu mottali lépp xanu ànd ko moom ñoo ngi leen nuyu baax yi waa kër gi waa wenkaat ak ñu leen di nuyu baax te di leen siyaara di leen baalu ci koor gi te di leen baalu di ñaan yàlla ñu ko teewee déwén yu bari ci barkeb sëriñ bi. amiin amiin amiin jërëjëf. Uh, jërëjëf sëñ Modou Kara gis ngeen ko noonu ak nuyoo bi matale na macha allah uh, waaye jotaay bi tamit day jotaay xasida ñu daal di bëgg tamit comme que buñ koy ubbi nga daal di ñuy yëkkatil xasida yi. aouzu billahi mina shaytaani rajim wa inni u'iizuha bika wa zurriyataha mina shaytaani rajim rabbi a'uuzu bika min hamazati shayaatiin wa a'uuzu bika an yahduruun rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli barki borom Tuuba bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbi waskur jamia ahmali warfa ilayka xaalisatan maxboolatan amin sakur rafiu sukuri li rabbin karimin kana shakara wa artaji minnu fi daarayni abukara sukuri wa artaji minhu fi daarayni abkaara katabtu sukuran la ma xat rajawtu bihi kawni saidan wa shakaran wa zakara wajjatu wajjiya fi sari nabi sanadi lil akrami raafil wahabi shakara rajawtu min taala shukru amali wa rafu yawma anini ma khafara رجوت أن يمو صلاتي جملة أني وتسير لدار كفارا إلي أخاتب في البر مغتربا ولم يزل جل قارا وجبارا إني أخاتب في البر مغتربا ولم يسل جل قارا وجبارا فجئتني ربي بالآلاء عبلي أن أعود للبرير لي كل من بارا فجئتني ربي بالآلاء عبلي أن أعود للبرير لي كل من بارا على النبي سلبتني بالكرامة وارفع وسدني بعد رفع أبكارا على النبي صلي بتليم بالكرامة وارفع وسدني بعد رفع أبكارا waaw jërëjëf macha allah dégg ngeen ko ci njàng mu Pastef mi ñu daal di bëgg a xam nag sëñ Modou Kara kan mooy sëñ Kara Thiam. waaw Mouhamadou Kara Thiam day ab dongo rek boo xam ni. Eh, bu sopp Serigne Touba eh, sëriñ bi def ko nag mu koy liggéeyal ci xasida yi eh, doon it ko am cofeel ci xasida yi ndax bëgg gi rek moo ci jiitu ndax sëñ bi moom lépp lu jëm ci moom rawatina di ko liggéeyal ci mbindam mi bëgg gi rek moo ciy jiitu mooy waral nga mën koo topp def ci yitte Modou Kara Thiam nag mm-hmm. euh, lépp nag. Mm-hmm. la yaroo. Mm-hmm. fi la euh, euh, na foofu la ñu yemale ba nga def ba dugg ci njàng mi. waaw moom njàng mi ni ma ko tàmbalee rek. ndax gannaaw bu sëñ bi tànnee. ndax sëñ bi moom. mbindam mii daf ko fonk ndax dafa wax ni karaamati xat weddi mm-hmm. sama karaama mooy sama mbindum loxo kon nag ñi nga xamante ni ñoo ciy dugg mm-hmm. euh, kenn ko ne moo la ci dugal mm-hmm. waaye nag sa pas-pas ak sa yéene ak sa dogu nag moo la ci jox nag euh, wàccuwaay woo ci am waaw kon nag loolu daal li ci jiitu moom mooy bëgg gi nag te fonk na ko yëmaluñ ko ak dara nag. waaw daal gëm nañ ni loolu daal. gannaaw ba dogal suñu borom wi ak taanuk sëñ bi. bëgg googu ñu ko bëgg moo moo ñu dugal ci xasida yi. waaw kañ la dugg ci njàng mi tamit ci waaw njàng mi nag. man na ni man damaa yarul rek. damaa damaa xàmmee rek da ci njàng mi. waaye nag am maa nag jëmmi nag. bi ma yëgee ni nag daal dugg naa ci carrément nga xam ni moom def naa ko sama yitte. Euh, maa ngi mën a wax ay quatre vingt douze quatre vingt treize. quatre vingt quatorze ndax guddi gi ma njëkk a fanaane. quatre vingt quatorze laa ko njëkk njëkk a fanaane ca Dakar waaw wax nga dëgg waaye njàng mi tamit ñu ngi sëñ Mor Kara ku ci nekk bu nekk am nga ci koy àndal euh, sëñ Mor Kara temps boobu mu ci dugg kan la ci doon àndal. waaw njàng mi nag euh, maa ngi ci njëkk ànd ak Serigne Khadim moom sëñ Xaadim bi waaw moom nga ci mas a àndal ndaka jeeg ndaka jeeg njëkk dama ànd sëriñ Xaadim Kebe ndax yàlla moo dogaloon ñu dëkk mhm. bokk benn koñ bu nekk mhm. waaye sëñ Xaadim bi daal maa moo ci gën a fees fii nii mhm. waaw waaw sëñ kii sëñ tamit ku ci nekk dañuy gis ne maanaam danga yor sa air bopp euh, sëñ Xaadim Gueye mi moom nga roy wala dangaa yor sa air bopp ni waaw daanaa ko roy nag man sëñ Ablaye Seck laa njëkk daan roy ci jàng jàng jàngkat roy naa sëñ Xaadim Gueye ba léegi nii dama koy roy waaye nag yor naa sama heure bopp yoo xam ni man damaa fa ne jàng bas man set du ma du ma roy roy roy kenn. waaw ah, jàngulu kenn jàngul nag moom daa yombut. Mm-hmm. ndax loo gis loon rek. Mm-hmm. dana am ci fu mu jógee. Mm-hmm. waaye chaque jour yaa sa air bopp yooyu jàng yoo xam ne ku ko dégg xam ni kii Modou Kara Thiam la. waaw ah, dëgg la waaw ah, yooyu nag yàlla suñu borom a sant bu baax ñaan mu dolli ñu. waaw ah, wax tamit sëñ Xaadim Guèye tamit nekk ànd nga moom. ci ban mm. ñaata ci diir bi nu mu toll daal bi nga ko dalee ànd ak moom léegi. waaw diirub daanaka bi ñu duggee ci njàng mi ba xàmmee rek mm. diggante 94 boobu noonu ma lay wax noonu. Mm. Euh, jàpp 98. ba. ay deux mille euh, deux mille deux mille deux mille cinq deux mille six yooyu daal. waaw maa ngi benn bàyyi di dem dem ci kuréel gi daal maa ay deux mille cinq deux mille six jàpp sept yooyu. Mm-hmm. waaw temps boobu tamit dangaa dem ba sëñ Xaadim ber la xam ne yow mi mën ngaa jàng wala de am yëg-yëgu xam ne yow mi war ngaa mën a ber saw yoon nga dem. déedéet xam nga jàng moom mm-hmm. euh, dafa doon loo xam ne ni ginnaaw dañ koy def tout le temps mm-hmm. te mbir la moo xamante ni dafa dañu bañ ba tuddee ko jàng. xam nga lu ñuy ñuy jàng moom du du mokk. du wala bu dee mokk mokkit. Mm-hmm. Euh, mokkin wa dana am lu mu lu mu mu mu des. Mm-hmm. ndax jàng lañ ko tudde chaque jour mm-hmm. yaa ngi ci lu bees. loolu buy ñëw yaa ngi cee yaa ngi cee yaa ngi cee jàng yaa ngi waaye nag da ba toll ci niveau boo xam ni moom. daanaka dara dootul la jaaxal daal. lii wala fi naan ku yàgg ci njaw ku ne di njaw loolu mooy mooy li wér waaye dafa doon liggéey boo xam ni doonu ni danaan jekki-jekki rek wala ni la ñëwal beru yow yaa ci nekk ba xam ni kat am nga sa kuréelu bopp man ngaa wéy ak sa bopp yaa ngi am say programme yoo xam ne yaa ngi dem ak ñëw programme yi dem ba saturé ci yow mënoo dem ba boole ko di dem di awu ji di dem di nga daal ñëw nag toog. Ah. sëñ Modou Kara ñu gis na tamit yéen jànkat xasde yi. Mm-hmm. ñu ci bari buñ dee jàng xasde bi tamit. Mm-hmm. ñu koy boole ak i wolofal. Mm-hmm. ndax sëñ Modou Kara bokk na ci ñuy def wolofal yi wala. waaw wolofal dañ koy jàng. xam nga sëñ Moussa Ka dafa wax ni. cërub wolof ak bob yaaram wax yi yëpp jam lu jóg ngir Rasul lay rek batin ba saf xorom. Ah, sëñ Moussa bi muy. jógee di tàmbali way wax na ni waye mi njëkk arab la daan way ay sëñ bi moo ni moo ni ko ah nit kat boo koy way da koy way ci lam na la mu nàmp daan xanaa xamoo daan ko xanaa xamoo yonente bi sallallahu alayhi bu nàmpoon weneen weneen weneen weneen weneen weneen weneen weneen weneen làng wudul arab danaa ko ci way kon nag ah, arab bi sëñ bi way nun murit li ci ëpp moo tax ñoo xam yonent bi. waaw gannaaw ba nu jàngal alxuraan ba xam li ci suñu borom wax. waaye nag nun bu nu xamee dëgg-dëgg yonent bi sëñ bi tax ñu xam ko. waaye nag sëñ bi nag mënoo koo xam. Hmm? te jàngoo way yi nga xam ni mag ñu baax ñi fi nekk. sëñ Moussa Ka sëñ Mor Kéré. Hmm. sëñ Bay Jaxate hmm. ak ñeneen ñi nga xamante ne ñoo topp ci seen gannaaw. ndax lépp sëriñ bi rek la. wax nga dëgg ah, ah. waa tamit ñu daal di bëgg xam tamit eh, yan bu dee yow nja nekk nga ci njàng mi. Hmm. ñaata kaset tamit nga ci génne. waaw kaset euh, génne na génne na génne na quatre kaset génne génne naa ko. ah ñeenti kaset ah, yooyu ndax ay wolofal bokk na ci walla. waaw benn bi bu njëkk a jàng. Mm-hmm. xasida laa jàng muy xoqal bu kaaw boobu laa njëkk a jàng. a jàng waaye yi ci des ak beneen boo xam ni. Euh, wakkanaa xan moom laa ci jàng. Euh, yeneen ci des yëpp. laa ci laa ci jàng. wala fan la wala fan sonn jaar laa ci jàng. ñu daal di bëgg tamit nga daal ñu dikkaatal ci yenn wala fan yooyu yëkkati na ko ci biir jataay bi. Euh, waaw ñu barkeelu ci tuuti rek. alhamdulilah ki may xamal bu wér di ma may xéewal ci barkeeb ki mu xëy jébbal lu dooni xéewalam alhamdulilah ki may xamal bu wér te di ma may ci barkeb ki mu xëy jëbal lu dooni xeewalam yéen gaa ñi diine jege leen ma yegge leen te dolli leen xam-xam bu wér te jëfe leen ma fecci tey ay pas-pasam koo xam ne xam na lii na xam ku ko xamul ma wax mu xam xam lu ko xamul day taxa xam xam lu ko xam day dolli xam te lii ma leen di bëgg a wax day daggi xol dëggali wax jàngale jëf te ko wax jëriñu fii ak fanu jëm man ma suma leen waxi neen man ma may wax du waxi neen lii wayu xutbulu du neen ñu di fi way ñu dul kemam naa sant yàlla mi ma may xutbu bu mag mu di ma may di fayuwaay di dàqi mooy ci leeri mbooti ragalam ay sëriñ Tuuba di may gisal lu ma gisul di may yëgal lu ma yëgul di ma xamal lu ma xamul ci diwu si ngeeji xam-xamam Samba Jaara ma gërëm sama sëriñ dama xorom way wi ma way ci waa këram ñoo am gërëm ñoo am korom bu leen ma yem yem leen ko moom du man ki di wax mooy ki di wax waxande laa wunte ji wax mun ma tijjee may làmmiñam bu leen ma yem yem leen ko moom du man di wax mooy ki di wax waxande laa wunte ji wax mun ma tijjee may làmmiñam bu leen ma yem yem leen ko moom du man ki di wax mooy ki di wax waxande laa wunta ji wax bun ma tijjee may la mi ñam. Ah, macha allah dégg ngeen ko ci olofal boobu tamit am na solo lool macha allah waaye sëñ Modou Kara ñu daal di bëgg a xam tamit ndax sëñ Modou bokk nga ci jànkat yi nga xam seen dañuy taxawal bis. waaw loolu de yàgg na lool sax moom. Mm-hmm. Euh, bis bi ñuy taxawal. Mm-hmm. Euh, defe naa def nañ ko ay at yu bari sax. Mm-hmm. Euh, xam naa ben ko tàmmee léegi léegi. Euh, fukki at yeeg nangami moom mat na moom. waaw ba euh, ci euh, fan yi la jàll rek. Mm-hmm. la avril bii jàll. Mm-hmm. lan ko mujj mujj mujj taxawal. Mm-hmm. bis la boo xam nag. bis bu am la boo xamante ni sant sëriñ bi lañ ci def. ak sunu wasila sunu sëriñ sunu turandoo Cheikh Mouhamadou Awa Balla. di ko taxawal di ci ñaanalit waaye dawlu yi nga xam ne ñoo jiitu yëpp. Euh, da ci sant sëriñ bi. te di ko li ngay def di dëgg ci yow. ñi sëriñ bi ñor ñëpp dana ñu ànd koog yow. xëy na nag léeg communication bi mooy xaw di des. ba ñenn ñenn ñi duñ ko yëg nañ ko war a yëge. ak it bés buy ñëw. li aju sa bopp. ba dox yi nga ci war a dox jóg dem ci ñi nga xamante ni ñooy taalibey sëriñ bi euh, day xaw a xaw jafe diggante yi ngay jàpp bis bi rek ndax yëgle dafa xaw metti mm-hmm. waaye nag loolu moom euh, comme yàlla dogal na kër yi mel ni seen kër yi mi ngi fi. 24 mm-hmm. eh, actu moom. Uh-huh. danaan man euh, dox ci liggéey boobu bu oh, baax a baax. te comme yàlla dogal na diggante bi am na moom euh, buñ ci accepté rek. Mm-hmm. danañ dox ci yooyu ba mu gën ndax liggéey la boo xamante ni. fi mu mën a agg sori na. kon nag moom yàlla nañu ci yàlla bëgg jàmm rek. te teel ñu kóllëre gi ba mu gën a yaatu. barke sëriñ bi amiin ah, waa jërëjëf sëñ Modou Kara ñu daal di bëgg a xam tamit yéen comme que ay jànkat ngeen tamit te ci réew mi ngeen bokk. Hmm. nan ngeen def ak nan ngeen ban relation ngeen am ak ñi nga xam seen ñoo di politiciens yi ba ñuy mën jàpp seen bis yi. waaw xam nga nag euh, ñaari mbir yi. dafa dafa dafa xaw a xaw a xaw a waroo tuuti. Hmm. waaye nag comme yàlla dogal na. Hmm. Euh, politiciens yi. ñu ci bari talibé sëriñ bi leen. waaw euh, yàlla dogal na man ñi ma ci jaxasoo lu bariwul. Mm. waaye ku mel ni euh, sama mbokk sama xarit. Mm. Euh, président Mamadou Guèye. Mm. kooku moo jiite parti bi nii wax mana a convention neneen moom Dakar la féete. yàlla dogal na sama xarit la. di sama mbokk. di koo xamante ni moom euh, yàlla dogal mu dugg ci politique nekk ci waaye moom dara ñu ko dul sëriñ bi moom bu ñëwoon fii bu bu toogee fii bu ni lu kii ndax dana yëngu ci politique sax doo ko doo ko doo ko xam. boo ko fekkul muy wax ci politique doo ko xam ndax moom ak tab taalibe la. yàlla dogal leen Abdou Lahad Seck saa dàgg moom it yàlla dogal na ñoo bokk yaru man ak moom. ñoo bokk benn koñ bon yaroo. Euh, wax dëgg yàlla mooy sama wëllëre la. waaye nag man ñi ci jaxasol mu bari lool. ndax xam nga dëkk bi moom. fi nekkee euh, te yàlla amoo jot. na yu bari yoo xam ne doo ci mën di ci yëngut waaye ñooñu ma la ñoom samay xarit samay wóllëre leen. ñu gis ne tamit eh, tamit ni ñu ko waxeeti sëñ Modou hmm. ndax yéen a ngi def ay tournée internationale comme ni ko yeneen yi defee wala. waaw tournée internationale moom moom moom moom euh, ci ëpp man sama génn ci Afrique bi ci lay ci lay ci lay am. Hmm. xëy na nag yeneen dëkk yi ci des fu mel ni Amérique France Italie Espagne yépp am nañ fa ay soppe yoo xam ne nit nga fa nekk yàlla dogal fu nu toll it ñu ngi def ay pexe ngir ñu dem waaye xam nga wàllu wi ñu nekk moom pour am am am am ay ba génn ndax li ci gën a jafe waaw xam naa nag loolu moom ñu ngi ciy lancé appel comme lii doon na loo xamante ni mu àddina bépp koy seetaan ñi nga xamante ne ñooy talibé Serigne Touba te nekk ci wàllu yooyu. Euh, ñu ngi leen ci tàllal sunu loxo bu baax. Mm. ndax wax dëgg yàlla taalibe Serigne Touba yi fi nu nekk ci àdduna bi mm. bari na. Mm. te ab murit fu mu nekk dana fa soxla woo xasida te yàlla xam na ni wallaahi alxasim nii ma la ko waxee noonu la demee. Euh, muy ci barab yi nga xam ne murit yaa fi nekk yëpp Argentine. ba ci Brésil fépp. Mm-hmm. suñuy soppee nga fa yoo xamante ni fu mu toll ñu ngi woo ngir bëgg ñu jëm fa. yëkkati leen xasida yi waaye nag wàllu jóg bi. Mm-hmm. moo xaw a jafe. waaw ñu ciy def ay jéego nag waaye xam nga. Mm-hmm. yooyu moom da ngay def li nga war def rek. toog di déglu. di waaw loolu moo ci nekk. Ah, est-ce da ngeen a mas a def mu saa su ne ci loolu. waaw ñu ngi ci ñu ngi ci. mas sama euh, jóg benn yoon. dem waaye boobu léegi yaa ngi def ay jéego waaye day xaw a jafe. daf xaw a jafe te it ñu ngi def ay ay ay ay maanaam invitation ngir euh, nga jóg dem nga mën a am visa waaye yooyu yëpp euh, day doon loo xam ne daal moom. dafa dafa dafa doy waar daal. Mm. Ah, ay na nag. Mm. maanaam loolu baax moo mel noonu. lu baax moom day day day xaw a jafe. du yomb waaw ah, day xaw a jafe mm. ñun loolu la leen ko jàppee daal. Euh. waaw sëñ Modou tamit ñu daal di gis ne maanaa yéen fu ngeen nekk tamit am ngeen fay soppee yaakaar naa hmm. ndax gis nañ ne maanaam seen koñ yi ngeen di dëkk hmm. nañ di taxawal li nga xam ne moo di soppe hmm. soppe si seen koñ yi rek la wala seen soppe yaatu na fu ne waaw soppe yi xëy na day gën a fes ci koñ bi nga dëkk rek ndax euh, ji nga xamante ni moom la ñu dëkk yow am yéene jooju moom la ñëpp di di am waaye xam nga di dajaloo di di def ay daayira xeet yooyu ñi nga xam ni dañoo sori. duñu ko man buñ doonul mbooloo mu ko mat foofa. pour ñu taxawal fa lu ñuy tuddi daayira du yomb. waaw waaye comme ça ni may waxee mooy comme seen bis yi. Mm-hmm. xam nga seen bu bu dikkee di ngeen gis soppee taxaw bu baax a baax. Mm-hmm. ndax euh, maanaam soppee te booba tamit dafay mel daayira bu ñu yor ndax defe naa dinañ andi seenu jébbal. waaw nañuy jébbalee yeneen i di nga gis yeneen i quartier yoo xam si ne. ay mm-hmm. soppee nekk yoroon fab daayira. wala maanaam daayira bi ne ci koñ rek lay doon. waaw xam nga bis yi moom bis bu xësee ñëw. fu sa soppee nekk rek. day day day ñëw. ñu nekk Ndakaaroog nekk Ndarak. nekki Thiès nekk Louga nekk Kaolack. partout daal. ci ci ci ci ci ci réew mi. fu waaye nekk fu ne. bis bi jotee tamit sab soppe day jóg ñëw. Ah, ñëw ànd ak. ñi nga xamante ni ñoo nekk fii. Eh, taxawee daayira bi ndax am na ñoo xam ne ni. du ñu bindu ci daayira bi. waaye taxawaay ba nga xam ne ñi bind ci daayira bi moom. moom lañ am taxawaay boobu lañ am. Mhm. nga xam ne ñoom fanu fanu nekk nim mu la ko waxee léegi rek mbooloo moo matee taxawal daayira moo fa dul nekk. Mhm. waaye yéen a jooju lañ ci am. Mhm. loolu nag bis yi saa ñëwee. wala yeneen bis yu mag yi. lu mel ni màggal Touba ak yépp Rajab dañuy ñëw ñii dañuy ñëw dal see yow. ñii dañuy ñëw siyaare si la. doo ko dem doxi seen i seen i yéen yitte. waaw fooy jàng ñu ñëw ànd ko yow. boole ko ko jooy. nga gis koo xamante ni moom diir bi bi mu fay nekk lu mu ko fekkeel mën na la koo jox lu mën doon nag moom lu mën di doon bàyyiwuma nag lépp ndax gis nañ fi ñu jàng ñu jox leen kër ñu jàng jox leen oto ñu jàng ñu jox leen soxna waaw na ci biir. am na ci biir ndax xasida yi moom moo mel noonu ndax wax léegi lu yëngal aras moom doo du bàyyi nit. te moom boo ko yëngu. kenn ku ne ak sa jël na mel. ñii dañuy jooy. ñi seen jël dañuy joxe ba leen yor jeex ñu motalee koy jooy waaw xasida yi moom ku ci nekk moom loo ci amagul it bébé nga koy séentu waaw ñu daal di bëgg a xam tamit yéen relation nga am ak ñi nga xam ne ñoo di waaw man ñëpp bu rafet la am ñoom ñi nga xam ne ñoo mag samay mag lan di samay xarit ñi ma ndaw samay rakk lan ñoom samay xarit lan ñi nga xam ne ñoom laa maaseel. amu ci kenn xaar ma xaar ma xaar ma yàlla man ñëpp la amal jàmm. ndax liggéey la boo xam ni kat. liggéeyal sëriñ bi liggéey sëriñ bi nag. amul ngiiroo amul ngaayoo. jàmm rek ndax moo ciy maye. waaw ñaan suñ borom mu gën ñu koo saxalal. ba diggante yi di gën di di di di di di di di di di ratax. li ñu ci yéene lépp kenn ku ne suñuy diggante suñu borom kàttan ñu mottali ko. Mm. waaw waaw sëñ Kara ñu daal di gis na tamit eh, roy yi ci comme tey jii yéen jàngkat yi xam nga dañuy royante. Mm. Eh, ndax maanaam roy googu. Mm. nit ki war nga koy roy rek di continuer saa nga yor jël sa air bopp. ndax lañ cey xalaat ñun est-ce que maanaam kooku bu demee ba teew ci baas boo xam ne teew nga di nga fa war a mën a jàngoole wala bu ngeen jàngee dinañ ne ah diw kat yëkkati ko waaye waaye diwa toogaat est-ce que maanaam kuy jàng daal jotul tamit nga ciy boole sa air bopp di ko jël waaw da xam nga loolu nag maanaam suwaa la ci boobu. dafa am ñoo xam ne dañoo suwaa man damay roy Xaadim Gueye rek ñii suwaa ni damay roy sëñ Ablaye Seck ñii suwaa ni damay roy sëñ ay suwaa yoo xam ne ni. Euh, dafa dafa dafa ne ci biir jàng. Euh, am na ñoo xam it waaye teewut danañ am seen air bopp yoo xamante ni danañ ko jàng nga xam ni buñ roy luñ roy roy du tee danañ jàng seen am ñoo xam nag daanaka. Euh, li ñuy am euh, ci ay air bëriwul daanaka ki ñuy roy rek lépp lu leen dikkal ci biir euh, air boobu ñuy roy noonu ci leen leen dikkal waaye li wala fi naan roy moom du nuroog piir euh, roy mën na nuroo lool lool lool waaye bu dee ci ñi nga xam ni ñooy diglu ñoom mën nañoo bañ a xam waaye bu dee ñin jànkat yi nga xam ni yow rawatee ne ki ki nga xamante ni jaar nga ci ginnaawam xam li muy jàng saa boo diggee waxuma la gis jëmm de waaye kaset dong boo ko déggee ñu teg ko. Mm. da nga xam ki ma ki ma doon. Ah, ah. nag dañuy gis ne léeg-léeg da ngay gis nit ku toog di jàng. Mm. Mm. baas booba teewoo fa de waaye da nga koy dégg lu mel ne comme muy roy muy roy seexu naa mbaj. Eh, ñu ne ah diw moom de defoon naa ne ñu ne ah, seexu naa mbaj dafay jàng ñu ne du moom de. nga dégg ñu defe naa moom la ndax ñun. da ngay gis ko xam ne day roy ba niroog benn la ñuy doon. waaw loolu dëgg loolu moom day am ndax loolu suñu borom moo koy moo koy def am ñoo xam ne suñu borom moo leen ci dimbali am maanaam bu ñu toogee di roy maanaam maanaam maanaam maanaam leen a xàmmee nii. Mm. waaye loolu. Mm. ci ñi nga xamante ni duñ ay ay ay ay ay jànkat waaye yow miy jànkat. xàmmee xàmmee xàmmee maanaam voix yi. Mm. saa boo diggee rek da nga xam ni kii moom diw la. waaw donte da koy roy it. Mm-hmm. waaw waa eh, ñu daal di bëgg a dikkaat ak li li nga xam si ne eh, jànk ay jànkat ngeen. te ku ci nekk àddina moom fi nekk nekk. am na ay mébét lan ngay xaar ci sa kanam. waaw li may xaar ci kanam day bari na lool sax. ndax ñun ay ndaw lan te sunu avenir mi ngi ci kanam xanaa ñaan yàlla mi nga xamante ni mooy sottal te di dimbalee mu dimbali ñu bay yi nësër yépp sunu borom kàttan nañ ñu mottali ko ndax noonu li ñu yittewoo dafa dafa dafa bari ndax ñu ngi yittewoo maanaam sonorisation boo xam ni day mat sëkk donte am nañ ko waaye def dul def dul doy ndax léeg nga jëm ci ay barab yu fasantikoo yoo xamante ni. fenn fu ne def biir dafa war dem ba yàlla dogale nag lépp mat. fu ci ne dara dafay dem rek. nga xam ne du yàq dara ci sa liggéey. boo demee def li ngay defee def li ngay defee. ay daamar yu ñuy war. di ko jàngi di jàngi yooyu yëpp dañ koy dañ koy luwee. ndax mbirum mbooloo la moo xamante ni fu nu fu nu jëm. Mm. Euh, mbooloo ngay àndal di dem li ngay ànd yow rek di di génne di dem bariwut te mbooloo fu nu jëm da ngay soxla daamar te loolu boo ko amul da ngay fay transport uh-huh. waaw kon nag loolu yooyu yëpp ay mébét la yoo xamante ni mi ngi soo kanam di ñaan suñu borom mu jàppandal ñu uh-huh. ni yëpp dana mën a gën a uh-huh. jàppandal liggéey ndax lu mel ni ay studio yooyu yëpp dañ koy yittewoo ndax Euh, léeg-léeg nga toog dara dikkal la xam ne bu fekkee dafa nga yor sa studio boo xam ne. yaa moom sa bopp da ngay rek. Mm. daal koy arrêté ah, denc fa. waaw saa boo nee ba jublu ci rek mu yomb ci ah. Ah. ba ci sax seen bis yi ngeen di taxawal sax damay gis ne bu ngeen taxawalee bis euh, di ci gis baas yu mag day ah. maanaam baas bi day yaatu lool tànt bu mag ah. est-ce que loolu euh, yéen jànkat yi soxlawu leen tey ji benn béréb bu mag boo xamante ne tey ji bu ngeen amee seen bis rek da ngeen fay woote ñi nga xam ne ñoo leen war a wuy si muy seen soppeek seen xarit seen am jàmm dem fekk leen fa wala loolu yéen ko jot sàkku ah kay ah kay ah kay waaye xam nga fii moom day dëkk boo xam ne euh, bokkut ak yeneen dëkk yi hmm. xam nga bu dee fu mel ni yeneen dëkk yi hmm. barab yooyu moom fàggu fàggu nañ ko fa hmm. ba tax na bari na ñi nga xamante ni ñoo yëngu ci lii ñu yëngu te ci côté yooyu ñoom euh, danañ fa dem di ko organiser foofu. loolu bëgg nañ ko ndax li nga xamante ni moom la yàlla dogal ñu koy def fii. di ko financer ci xeeti ay baas ak yooyu. loolu metti na. waaye bu yàlla dogaloon. te loolu tamit bis yu bis yu taal bi sëñ Tuubaa doo nga leen ciy fekk. ñoo leen si sunu wërsëgu bopp ak li xamante ni moom la. Euh, soppe yeeg wëlëre yi di la indi rek ci nga ko ci nga koy def waaw loolu daal mooy mbir mi loolu moom mm-hmm. dëgg yàlla bu fa amee danañu gën a jàppale bu baax a baax a baax mm-hmm. ndax euh, dana jàppandal liggéey bi dana jàppandal it mm-hmm. euh, daje bi mu gën a yomb. waaw sëñ Mor Kara ñu lay sant bu baax di la gërëm di wax ne suñ waxtu liñ ci joxoon bu nekk liñ ci doon cëral dafa nekk ci cappaandaw gi. ñu bàyyi la nga daal di tàggoo pare mu tëj nga daan nga tëjale ñu xas day. waaw ndeysaan di leen sant bu baax te di leen gërëm ni ko waxee woon ci tàmbali bi rek dëgg yàlla yow it di la sant bu baax soxna maam Fati. Mhm. dëgg yàlla jokkoo gi am na solo. Mhm. ndax liggéey moom. Mhm. communi communication daf ci am solo. ndax yàlla ku jokkoo yow rek. xam ne nit ku dal nga nit ku teey nga. Mm-hmm. nit la it ku ku ku xam liggéey bi nga nekk daal. Mm-hmm. ndax jokkoo nan loolu yaatu. Mm-hmm. waxtaan na nit loolu bare bari. kon nag ñu lay sant bu baax di ñaan kër gi yàlla ko suñu borom yokk. te def ci barke. Euh, sunu borom yàggal fi sunu kilifa yu baax yëpp. sunu sëriñ sëriñ xaadim moom Cheikh mu Amadou bi moom suñu wëroo Balla. ñu ngi ñaan lu baax mu yàgg fi njabootu sëñ Modou Balla gépp njabootu maam Thierno gi mm-hmm. waaw jërëjëf dégg ngeen eh, sëñ moodu Kara tey ji moom lañ dalaloon sëñ Modou Kara Thiam mi nga xam ne mooy jànkatu xasida eh, ñu dalaloon ko fay tey ji ci li nga xam si ne moo di jotaayu koor ñuy sant bu baax ñi nga xam ne ñoo ñu doon bàyyi xel ak suñ cameraman yi Seexuna ak ki ne moo di Moussa ak sëñ bi Jaxate eh, Seex Jaxate ñu nekk ci caméra bi xam naa Jaxate Jaxate moom dafa xaw a ragal koor sant bu baax tamit mm-hmm. soxna Assi la mi nga xam ne moom lañ daan bokkal jotaay bi di sant El Hadj Ousseynou Ndiaye Khady Ndiaye nga xam ne moo nekk ci montage bi ñooy sant ñëpp bàyyoon kenn di leen jox dig daje ci beneen jotaayu koor jërë ngeen jëf ataytani mal xalba ansa kulama mada min adri mawta zulama afani man maalo ku fannaat bi maali xayri saaxa kula man jaat أجملي بكن ولا واتربي ولم يكن كفنات ناجاني الله المكرم السمت تناجيا به كفاني الكمت وجعل الأكرم أنفع الكرم وضرري بخير رد لنسرم أسألوا كونتي الخسيدة خارعة لعادة مفيدة يا حي يا خيوم salli bi salaam ala lazi jaa bi ahsanil kalaam ala lazi jaa bi ahsanil kalaam salli wa sallim wal taqabbal sal kalaam munala qaari zil hurufi bima yafuqu dhanna min mahrufi linazimil hurufi khalid rabba khalid rabba يا من كفاه ذا الغرور والنباء ولي يا رحمن يا رحيم يا حيو يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا صلاة مسلما على مسغسي الخلا